Euh, xool nan la ñuy euh, fexe ba yenn structures yi mën a fonctionner correctement et je pense que bu ñu ñëwee ci commencement bi dañuy def état de lieux ci loolu lañ koy demander aussi bien ci ñi nga xam ni tey jii ñoom ñooy euh, doxal politique de santé mais aussi ci ñi nga xam ni tey jii ñoo war a fexe ba service yi mën a fonctionner parce que tey jii boo xoolee ci mbirum xaalis rek gis nañ ni secteur de la santé ñàkku ko mais xaalis bi fan koy jëmee moo demewul moo demewul noonu te yaakaaroon nañ tamit eh, loolu xëñ na lu ñu xaw a un peu du tout eh, xaw a jaaxal tuuti rek te waroon na mën a bañ a nekk ñun yaakaaroon nañ ñu parce que li nga xam ne mooy budget action sociale gis nañ ni ci biir budget ministère de la santé bu eggee deux cent soixante dix milliards pratiquement la fa nekk ci action sociale eh, matul ou bien trois milliards ca lay toll. ñu amee ay bor yu toll ci ñaar fukki milliards yor ko hôpitaux yi fayu leen ñu ko loolu aussi il faut que moom ñu réglé ko.